Sénégal bi gën a rëy si sàmm ak ak doomu aadama yi si gis-gisu Amnesty International mooy tu tonk yi di wëy rek di taxawaalu si mbedd mi ak di yalwaan si rapport 2023 bile bile ONG mu ngi xayma ne lu tolloog téeméeri junni tu tonk ñoo yalwaan si mbedd réew mi. Euh, ndongo daara yi ci anam yu nekkee ci biir daara yi anam bi ñuy dundee. gàcce bëri la ci ci ci askanu Sénégal damay faral di wax ne état Sénégal du mës a dem fenn ci àdduna ne moom day sàmm ak ak yelleefu doomu aadama tant que réglé lu problème mu daara yi. je crois que loolu doy waar la sans compter métier yi dóor yi jeng yi yooyu yëpp n'est-ce pas xëy na pratique la boo xam ne yàgg na fi waaye dafa àndatul ak jamono. am ne si jàpp na ni nag jalgati yu bëri yi ñeel mbirum ak ak yelleefu doomu aadama. réewu Sénégal moo ngi ko dund ci jamono gi ñu doon waajalee élection yi rapport bi andi ay leeral si njombe yi mu jàpp ni ay takka der def nañu ko ko ci kaw yi civil waaye malheureusement li ci biir yi mi mooy surtout au mois de juin 2023 gis nañu ay takk der yoo xam ne ànd ak ay nervi yore ay fetal di tiire di rey ay nit te lu mot juróom benn fukk doomu Sénégal ëpp na ko sax ñàkk nañu seen bakkan diggante mars 2021 ak évidemment euh, février 2024 ci dox ñaxtu rek. Amnesty International yemul foofee ndax mu ngi xam li ni si diir googee lu ëpp junni doomu aadama teg nañ leen loxo. diggante mars 2021 ba euh, octobre 2023 am na au moins junni doomu Sénégal yoo xam ne ñii ñu ngi ci biir kaso ñii duggoon nañ ci biir kaso waaye bàyyi nañu leen loolu vraiment lu doy waar la ci réew boo xam ne réewum démocratie la. Amnesty International di rafetlu nag taxawaay bi nga xam ne askanu réewu Sénégal taxaw nañ ko bi nguur ga woon bëggoon na jaay doole ba toxal élection yi bile ONG nag li muy xaaral xaarandi si nguur gu bees gi mooy mu jëmmaal ay coppite yu am am solo yoo xam ne dina gën a dooleel démocratie réew mi ba noppi sàmm aar ak ak yelleefu doomu aadama yi